yàlla xéewalam yi dafa bare lool waaye bi ñu ci gën a amal solo moo di may gi munu may tànn ci sunu bopp kenn yónni ko ci nun yonent boo xam ni ah ku tudd mbokk nit ñi tudd ko waaw lu ko dàq amul bokk ak ku gën ñëpp di njaboot ci ku gën ñépp lu ko gën di xéewal amul waaw di yonent boo xam ni dafay fekk ku sellul mu sellal ko fekk ko xamul mu xamal ko yonent bu nga xam ni dafa fekk ñu texee ji mu fexe ba ànd ga ñu ànd ak moom ñu texee ca waaw yeneen ci boo xam ne fekk mooy àddu nga di ko déglu yaa nga yéeg jëm kaw asamaan te yëguloo ko waaw yeneen boo xam ne dawal sa bët ci moom rek doy na yaroo àdduna ak àllaaxira waaw ku dawal sa bët jëm ci moom dootoo ñeme yére diku yeneen bu nga xam ni tànk ngay toog ci keram yaay sangu mbindeef yi waaw mu di yonent boo xam ni nag ci yooyu yëpp bu wéyee la nit war a am rekk yaatu dënn gëmu ca am dabu ko ca waaw mën muñ gëmu ca am kenn dabu ko ca rëy xel mamu ca am kenn dabu ko ca waaw tedd euh, euh, euh, ci mën a ànd ak ka mu àndal kenn dabu ko ca bare ga mu bare kersa kenn dabu ko ca fa mu jëm na mu selle kenn dabu ko ca waaw ba boroom xam-xam ba dañ ko ni waaw moom yonentam gi lan la mu ni yéwénu dund la goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku yéwénu dund goo xam ni yërmande yàllaa ko sàkku loolu rek la mën a tudde eh, eh, eh, yonentu yonent bi maanaam yàlla dafay jékki-jékki xool nit ñi gis ñu nekk ci yeneen yoo xam ni xam na ni gën nañu tedd noonu ñoom nit ñi waaw mu xam ni moom it yàlla gën na nekk yàlla noonu waaw mu bëgg soppi affaire ba yéwénal ko ba ku nekk xam ni nit tedd na looloo sabab mu yónni yonent bi nee na ba tax na loolu gën amul lu ko féete kaw ci war a mën a wax yonent bi lan a ko tax a ñëw waaw waaw adduna bu toskari yàlla xam ni mënatul dabaatal àdduna bu toskari bi te yéene yi nit ñi jàmm mu jox leen muhammad waaw nee na moom nag dégg gi mu dégg moom yonent bi ak xel mi mu am moo waral ci moom mu nekk sangu way xellu yépp képp ko xellu mooy sa sangu waaw ah dégg gi mu dégg it moo tax buy dégg yépp ci moom la jëm waaw dana te it loola sabab mu nekk di kiy ommat nit mi di leen ommat te xam ci seen jagley bakkan ak seen jagley ruux xam na ca xam-xam boo xam ni tax na lépp lu mu mën ci doon moom xam na la cay sabab xam na la ca yàlla war a dogal ndax bu fekkee ni danga war a ommat nit ñi tax xamuloo seen jagle bakkan xamuloo seen jagle ruux doo leen mën a ommat waaw waaw jagle bakkan ak jagle ruux dafa am ruux bu nekk am na lu ko yàlla jagle ndax ruux noo koy tudd mu gàtt lool waaye adduna la waaw adduna la bu yàlla tànc waaw nal ko nala nala nal ba mu mën a dundal yaramu nit rek waaye kenn xamul na ruux toll waaw la ne ci ay jagle ndegem jàngkat mooy topp ñax yi ñax gi nangam a koy dundal nanga ma koy defar ñax gi nangam dafay gën a ci toolu jàmbur rekk la nekk ku dem ci toolu ruux war nga xam ni boo xamul jagle ya ca nekk soo waxee nit ñi dama leen di ommat def nga musiba waaw waaw ndax kon dafay xaw a demee ni sama mbokk doomu ndar ba mu xamul toolu dugub ñu dugal ko ci toolu dugub ba fekk dugub jàngee focc mu jël ciseau di dagg poccit ma ñu ni ko lii lan la mu ni dama wut bouquet waaw waaw waaw moom defe ne ni bouquetu fleur la waaw ñu ni ko def nga musiba dagg nga dugubu jàmbur ji yépp waaw ba tax na su fekkee xamuloo jag-jag yi ruux yi ak jag-jagi bakkan yi bu leen jéem a ommat mukk bàyyi leen fa te wuti ku la ommat waaw nee moom nag xamoon na jag-jag yépp ba tax na daal mën nañu wax ni euh, moo sës noppam fi yàlla di àddoo jëm ci sabab yi ak dogal yi moo fa sës noppam waaw loolu nag pexe amu ci nee na te it boo seetloo doo xam dafay dégg sabab yaag dogal yi daf koy dégg rek wala boog yàlla def tey topp bëgg-bëggam dafa mel daal daf tey topp bëgg-bëggam ndax cër bi mu ko sedd ba lool loola tax bu masaan addu nga xam ni fa muy jële du fii bu àddoo rek nga xam ni fu mu jële du fii waaw moo tax ah mbokkam jaafaru sadiq waaw wax na lu ni demee bañ ko laajee seen mbokk moomu leen ni yonent la lu mu leen indil ci lu baax jaafaru sadiq moom lañuy ñuy wooye dul janaxayn waaw doomu bàyyi tëxu yonent bi la moom lañu ñu daggoon ñaari loxoom ca xare mu'tata waaw muy xare boo xam ne ñi yonent bi fonkoon ñépp ci lañu dem waaw ca la doon wëri buntu kër gu ne mu taxaw fa ndax keroog buntu kër gu nekk boroom kër ga dee na waaw fu ne mu taxaw fa di defal njaboot si fu ne mu taxaw fa di defal njaboot yi waaw bañ ko ne jaafar dagg nañu ñaari loxoom mu ne yàlla dana ko defal ñaari laaf yu moo naawee ca aljanna waaw dañu di ko wax dul janaxayn bahalilu minhum jaafaru wabnu ummihi aliyun wa minhum ahmadul mutaxayaru ca géwalam ba waaw xasan ubnu raayam bu rafet boobu la mu def ci ñoom tabarkalla jaafaru sadiq dañ ko ni lu tax ngeen topp ko mu ni kunna qawman ahla jahiliya naabudul asnaam dañu nekkoon nit ñu réer di jaamu xërëm wa naakulul maytata di lekk médd wa naatil fawaxis lu ñaaw nu def wa naqtaul arxam fu bokk nekk nu dagg ko nu nusiul jiwaar ku ñu dëkkaaleel du ñu sàmm sa àq wa yaakulul qawiyu minna daif ku man sa moroom duma waaw nu nekk ci loolu ba yàlla yónnee sunu ku bokk ak nun nu xam askanam xam dëggoom mësula fen mukk ba nu ko xamee mooy Muhammad ba léegi waaw waaw nu xam wëllëreem waaw masul sànk kóllëre mukk ñu xamit nu mu fegoo mësuñu ko bett ci lu ñaaw mu woonu ni kay leen jëm ci yàlla ñu ni ko lu tax mu ni ñu wéetal ko te jaamu ko te bàyyi li nu daan jaamu ak sunu bàyyi ci ay dojo ki yu ñàkk xorom waaw mu fexe ba dootu la fen ci pénc lu nu wax waxati muy dëgg waaw mu fexe it ba dootu nu lekk alalu jàmbur ku nu dénk nu delloo la mu fexe itam ba ñuy jokk mbokk mu fexe ba ku nekk ormal ka nga dëkkaaleel mu fexe ba ñemeetunoo def lu xaram mu fexe ba ñemeetunoo tur deret ci neen tere nu lu bon ak wax ju amul fulla tere ñu lekk alalu njirim tere ñu xas jigéen digal nu nu jaamu yàlla te bañ ko bokkaale leneen digal nu julli digal nu koor ak yu baax ya ca topp ndax jar na ñu ànd ak moom walla jarul ñu ànd ak moom nee na kon nag wax boobu jaafar wax ko nee na ku ko seetlu ndax di nga mën a gis xéewal bu ko ëpp doole waaw ndax nit kat lu mu kàccoor kàccoor bu dëngee rekk xelam du dal waaw nit balaa xelama dal mu yëg ni ay jikkoom dëppoo naag na yàlla bëgge kooku ñépp ci yem waaw balaa sa xela dal rekk say jikko dëppoo ak na yàlla bëgge bu ko defee sa xel soog a dal nag nee na loolu dal moo di